nga yem ñu dem bismillah bismillah Benn.
lée jibu day war ba faw rek luy war xaslu waxil gise bi raxas bitti yaram lépp lu mën a feeñ lu mën a gis ci yaram bi mën a yén ci mën a wa in bi naw min doonte dafa dikkoon ci jamono nelaw itam aw baada dahabi lëddatin wala mu ñëw bien après bila jimaa in mu ne walam yaxtasil te fekk sanguwul woon léegi di kon bu fekkoon sangu woon na ba pare mu dikkaat bi ci sanguwaat tey mu ne waaye laa ba coogee ni ci dul bànn maanaam ku ñu dóor wala daanu daanoo ci garab wala dara mu du am du sangu de aw xayri muxtaarit wala boo xam ne du mu lu ñu baaxoo waaye tawax doo mu ne dana jàpp dégg nga ci biir kili bi cëngaay li maanaam su bu fekkente ne waralul sangu itam dana waral jàpp maanaam dana yàq njàpp dégg ngeen de te man jaamaam nag nga xam ne booloo woon ne faq tasa tamu sangu su ma am naa mooy li ñu waxoon mu jàpp jàpp mu rek a yàqu waaye wa- te bu fekkee julli woon na itam du jiit loolu wala waaye du baamu asalaata julli ga yéen a ngi dégg de li doomu dafa naqari misaal waaw dégg nga boobu bi maax yi bi xasifati baalixin wa dana waree ba tey cangaay muy waree bi maax yi bi xasifati baalixin ci fàddu asifa aji baalix mooy ku major waaye laa muraaxiqin du cagin aji yéemte mooy ku ko jege dégg nga xasaf aw qadraha wala kam lu tolloog xasaf bu fekkee ne dafa dagg kër gi dégg nga maax yi fàddu fi fekk waaye min bahimati doonte ci bàyyi ma la woon itam wa mayitin wala ku dee wala li ba soppee fat na waaye ca ngaay li mu raaxiqin ñeel a jiyante mooy ki ko jege ñu la ci ci ñàkk waru ca ngaay bi waaye waral njàpp dégg nga te sangee te soppeef ca ngaay mu ne ka saxiratin nekk aji ndawe xale ju jigéen waxtu yaa ko laal na ko baalaxun a jigéen laa bi ma niin waaye laa du war ca ngaay bi ma niin ci ma ni wasara boo xam ne àdduna li fël ci pay wala wil tëj tëj mu ne waa dana war ca ngaay bi xaydin ci reegal wani fasin wala wasin waaye bi dabit mu ànd ak deret fekkee ne ki nga xam ne dafa mucc mu am deret bu fe nga xam ko booba la ca ngaay di war ci moom waaye bu fekkente ne nag amul ak àndul benn deret du war ci moom mosul waaw ki wasin bu am te amul benn deret waaw ca ngaay bi du war ci moom ñu nga kooku yaakaar naa ne itam day daal di julli rek wastu si ne waaye rafet loof na ba tey ca ngaay wa bi xëy bi mii ci lu dul deret maanaam waxoon nañu ne xaydu moom dafa moom day waral abadan maanaam ca ngaay fekkee nag ci lu dul deret la wa bi xayrihi wa su fekkente ne nag dafa gis baax wala mu mucc bi xayrihi dafa ne woon bi demin bu nag bi xayrihi bu ci fekkee ne àndul ak deret kon laa bi istixaada ci du caa génn istixaada istixaada feebar la boo xam ne day taqoo reega ki ko am xam nga kooku moom du ko tee jàpp julli waaye du sangu maanaam bu ko beneen cangaay warum du sangu ci loolu wanu di ba waaye soppeef na ko ba tey rek gudu foofu xam ne cangaay bi warul itam sopp nañ ko xam ne jàpp war wanu di ba soppeef na ko lin qitaa yi ngir daggam moom da istixaada feebar boobu nga xam ne day tax nit ki taxoo gis regalam fu mu toll gis ko bu fekkee ne dagg na sopp nañu bu jeexee jékki-jékki dog muy daggante sopp nañu mu sangu waaye ni ku lu war waaye jibu dana war xuslu kaafirin sanguk yéefër koo xam ne dafa tuub waaye ba'da shahaadati si gannaaw ba mu tuddee ñaari baati seede yi foofu ñaari cangaay kat mu ngi fi war cangaay bii nga xam ne day war ca gannaaw bu tuddee ñaari kan baati seet yi mooy dimanche kër ci li ñu tudd bu ñu wees yëpp bu fekkee ne ku góor dafa ne ko jigéen yooyu nga xam ne dana waral cangaay ci jullit dana sangu nag léegi cangaay li muy sangu loolaa tax xam nga daawu ko sangu loolu moo tax mu ne ko faatu ku faatu nit ki leen ci waxtu génn roo ci mboolem poor yi bën bënu yaram yi fi karaw di sax yëpp dégg nga dana ko sentir dana am lu génn mel na ko ñaq tax na mu comme mu dafa war a wuy ji boroom ànd ak cet setaay mu di ko sang cangaayal comme kuy sangu farata ki nga naka noonu yéefar bi nga xam ne itam dafa tudd ñaari baat seede yi nga xam ne léegi dootu yéefar jullit la yooyu yëpp fekk jaaroon na ca daf ko war nga xam ne kon wuti na sëy yu bon yi nga xam ne moom la sëy sëy yi nga xam ne jaaroon ci islam dañu sëyoon ko te tuub nga xam ne dañ ko cay bàyyi rek mu wéy wuti na ndax lii moom dafay loo xam ne farata la ci jullit mooy cëngaay yooyu day war bi maa ci li nga xam ne ngir yi nga xam ne sukkar fi defoon nag yi nga xam ne moom lañ doon wax ne ku mu dal da nga war a sangu nit ki bu tuubee ba tudd ñaari baati seede yi rek war na ko wa saxa wérat na sax it qabla xaatir yi bu fekkoon itam dafa njëkk a dal di sangu ba noppi soog a ñëw tudd baati seede yi dana war xam nga bi mu tuddagul baati seede yi même su sangoo te dogu ci tuub itam nga xam ne xolam nangu na yooyu yëpp waaye tuddagul baati seede yi ñu ko mun jullit waaye cangaay loolu gannaaw yàquwu fi te dara xewu fi te li tax nar a tuuba tax mu di sangu mu xam ne kon farata la kon dana doy bu noppee bu tuddee ñaari baati seede yi du tuubaat du du sangu du raxasuwaat du sangaat ñi nga waxat ajmaa te mbir moom fekk dogu woon na alal islaam yi dogu woon na ne day tuub ba nga xam ne xolam gëm na lislaam daal waaye ba tey fekk tuddagul ñaari baati seede yi ba tey maanaam maanaam ñàkk a laab bi nga xam ne ñàkk a laab bokk ngëm la kooku moom du dañ dul ba tey mu tuddee ñaari baati seede yi li nga xam ne dafa koy waral mooy yi ñu waxoon nga xam ne mooy waral ca ngaay naan même bu dee jullit loolu war na ko loolu moom bu ko sangoo da nga xam ne dogu na ci lislaam te tuubagul ca ngaay loola dana doy li nga xam ne nag moom kéefër gi moo ko waral moo tax mu di ko sangu te kéefër boobu moom dañu fépp tuddagul ñaari baat seede yi donte dégg moom dogu woon na wóoru ne lislaam ay dëkk te mu nangu ko mu waaye laa lislaam waaye bu ca bi nag am na lislaam yeneen atte lislaam yëpp nag du tax muy dox ci kawam du dox ci kawam kenn du ko jàppee ne jullit la daana dem ba nga xam ne fekkee ne jigéen la fekk dafa ëmboon doom yi ci biir buñ ko dee suul nan lay doxal dégg nga nan lañ koy doxal mu ne lislaam mu wéragul fekk tuddagul ñaari baati seede yi ndax dañ ne waxoon ko ci risaala ñu ñu andi lan qawlu bi lisaani wa i'tiqaadu bil qalbi wa amalu bil jawaarih ba yëpp bu ci manqué iman bi mu tudd fekkente ne daf ko fas ci xolam te dugg ko amagul lislaam fi jullit ñi mën naa suñu borom mën na nangu moom moom mi amul kumpa waaye jullit ñi ak tey lislaam duñ ko sajale woon ci moom su tuddee ñaari baat seede yi itam te jëfewu ko dudul nga xam ne ngànta tax waaye mën na koo jëfe mën na julli mën na woor ak yëpp mu mu mu bañ koo def itam ba tey lislaamam saxagul kon lislaam ñett yooyu taqaam bil qalbi wa nutqun bil lisaani wa amalu bil jawaarihi ci yëpp itam wayu shakka ndem sikki sàkk na lu tooy ci moom am na si ndax ma gula aw mani ixtasalan na sangu waa aada te mu baamu min aaxiri nawmatin ci mujj nelaw yi nga xam nelawoon na ko ci malaan mi ñu wala loolu lu mu jeex comprendre nga. dégg nga.
maanaam koo xam ni da ngaa da ngaa am yére wax na koy fanaan.
waaw.
xam nga sax am na lu ciy nekk. moo xam ni mu sobe la. nga jóg dem ba mu defar mu tooy. tooy tooy bi nga xam moom dana ko laal est-ce que kooku dana war a dañu war a raxas sobe.
tooy tooyu sobe sobe la saxaara sobe sobe la waaye nag xamuloo fan la fi ci béréb bi ci fan moo fi am sobe ci mbir ci ci mbubb mi ci yére bi fi tooy itam xamuloo mooy fa am sobe wala déet bu nu wóoree ne fa am sobe moo tooy moom fu mu laal sobe la bu fekkente ne góor ñu itam day daal di dellu ca sobe si dal ci yére te xamul fan la fa am xamul ngeen àtte ba kañ naka noonu kon nag fi mu toll woon waaw waaw dama naa xam nga mu ne nag ka taxaqu yi naka mu dëggoom ku wóoroon ni mën nañ lii itam noonu lay wóoree mu sungu baamu kañ la mujj nelaw naka noonu bu ko fekkee ci yëreem itam waxtu mu ko ci fekkee nelaw fa mu mujjee nelaw bu fekkente ci takk sànni te biir ci guddi la mujjee nelaw dina baamu suba baamu tisbaar baamu takkusaan fekkee ne dafa mujjoon a nelaw ci bëccëg midi la nelaw ba une heure ak yooyu mu gis ko ci takkusaan bu sang ko jëlee raxas ko dana baamuwaat takkusaan ne tis ak tisbaar tisbaar dégg nga waajibuhu aji waram moom te ngaay niyetu muy yéene mooy bi ci jiitu lépp di fi topp yu àndul ak yéene la lafa lawam la maanaam neen la wa muwaalaatu ak toftale muwaala muwaalaatu toftale bokk la mooy li ci war a tegu nga teg ko ci mooy ordre ordre bi ngay topp daal bokkul ak dagamtal yéexamtal kooku dana ko wax mu ni wa inna wati ndam yaa ngi yéene ne alxayda reegal wal janaabat ak janaaba ñoom ñaar ñëpp aw ahaduma fekk mu yée wala mu yéene ci kenn rek naasiyata lu mu di aji fàttali l axiri ñeel keneen ka aw na waa wala mu yéene ak janaabata wal jum atam mu yéene sangu janaaba yéene sangul ci ngaayu jumaa itam aw niyaabatan wala mu di mu di- mu yéene mu wotu anu jumaati wala si cangu jumaa bi xasalaa ñu am ñoom ñaar ñëpp ndax bu ci ne farata la farata moom benn mën na koo def benn ca ngaay dana yooyu yëpp kon bu fekkee ne dafa amoon régal ba mu jeex dana wér bu fekkee ni itam dafa waroon sangu farata dana wér bu fekkee ne itam dafa yéene kenn ki fàtte ki ci des te dana wér ndax benn bi da mën na yóbbaale bi ci des ni abat wala mu war a sangu jumaa mu war a sangu farata pour mu remplacer jumaa bi du tee ca ngaay jumaa yi am na ko am itam ci ngaay farata bi salaam waaw kooku nag suñ ko may ma ñaan mën naa jóg ba tey. maanaam jóg nga nga jóg nga pour pour pour jàppi. waxtu jot nga jóg pour jàppi.
waaw mu ko am nga yéene jàpp pour julli waxtu bi.
waaw boobu ba des na ko waaw wax. waaw fekkente ni ba nga toogee jàpp teewul woo maanaam yéene bi ci barab boobu.
waaw foofu dañu wax ne bu fekkente ne daf ko fàtte am na ci fuqahaa yu ñoo xam ne nee ñu jóg gi mu jóg ba fas yéene jàpp dana doy waaye bu dee ci julli de du doy ndax julli dañoo charte mu lëkkoog allahu ak diggante ah allahu jooju ba ci ak barak ba ci araj dañ ko yéene te bu bu dee julli xam nga da nga ci yéenewaale sooy boobu mënu mu gën a gàttee yéene julli gii rek ndax moo gën a gàtt ngay wax bisu sànq nangam julli tisbaar wala julli takkusaan nangam ñeenti rakka rakka yi itam xam nga fas nañ ko yéene waaye moom boo ko yéene wala du tee mu baax waaye war nañ ko yéene li nga xamee ne bu dee imaam yi ajjuma yi day yéene wu juuban waajib la ci moom mu yéene waale jiite nakal mustaxlif xaw fi ñu wa jàmm jumaatul mustaxlif fi jàng ngeen ko ci im na asir julli ragal wa usuba muxtafarun hmm?
wa usubu niyati muxtafarun ci njàpp mi waaw jàpp mi ak waaw ak raf ak rax bi waaw waaye bu dee si julli
du lay.
déedéet moom si dafa comme da nga doon yéene nit man nga fàtte tuddaale yi nga yéene nga fàtte waxaale sa xol yéene na maa julli ngir yàlla xam nga nga ñëw yàkkam daal daal fas sa xol yéene maa julli rek waaw Allah ba tey baax na ndax yàlla tax waaw xam nañ ne yàlla julli moom yàlla rek la ñu moom moom lañ koy defal keneen yow ko dana dana dana doy bismillah mu ne wa inna seer su fekkee dafa fàtte al janaabata janaaba ji aw xasada wala mu jublu niyaabatan wóotal maanaam remplacé ca ngaayal jumaa an haa walis ko walis ja janaaba ji inta fa yaa ñu dàq ñu ne benn du ci am benn fekk léegi dafa fàtte ne waroon na sangu farata fàtte na ko mu ngi sangu jumaa wala mu ngi sangu ci ngaay yoo xam ne dafa ko dafa koo wóotu léegi benn du ci am ndax farata ji gënoon war moom la fàtte te moom mooy farata ca ngaay maam nga du farata dañ ko sol fàttali ko nag benn benn bis Seydina Ousmane radiallahu taala anhu dugg ci jàkk ji fekk Seydina Omar radiallahu anhu di xutba Seydina Omar dox xutba bu ne ko ah waxtu wi mu ne ko mu ne de bu ma déggee nodd gi rek dama dal di jàpp dal di fu aw yoon wi mu ne ko ah jàpp nag te bañ a sangu nga xam ne kon ñaar yooyu yëpp yi mu ko reproché toog ba ñuy xutba nga soog a agsi xutba bi boo ci fekkoon benn baat it fekk nga xutba bi yëpp boo fekkoon xutba te fekk julli gi it fekk nga ko waaye nag xutba bi moo remplacé ñaar rakka yi xam nga ñeenti rakka la ñu war a julli tisbaar ñu julli jumaa ñaar rakka ñaar rakka ñi ci manqué xutba bee ko remplacé nii nga xam ne wax noonu lañ ko teree si julli noonu lañ ko teree ci xutba bu ñuy xutba même bu nit dee wax doo ko ne noppi ndax it mu mel ne yaa ngi si julli gi fekkente ne nag léegi dafa fàtte janaaba nga xam ne moo gën a farata mu yéene jumaa wala wuutal wuutal ko léegi du dana dana ñëw ñëpp ñu dàq ko benn du ci doy wat ban noonu lay war a taxliilu shaarin waxoon na ne niyetu niye wawaajibu woo ne niyetu yéene dégg nga wa taxliilu shaarin ak xalil karaw mooy kile ko nii dugal sa loxo ci baaraam ci biir daal kile ko ba ndox mi àgg ci yaram der bi wa daxfu wa daxfu magfuurin ak naka noonu najj najjal lu ñu létt fekkee ne dafa am na ay déet wala karaw gu baram mu kii ko nii ba ndox mi tukk doonte firnde ko itam comme jigéen ñi ñuy lette seen karaw waaye wax ñu ñu yoos wala yooyu laa naqatu foofu bu jaay ak yéen dé laa dindi war ko naqatu foofu firim soxla ñu koy firi buy songu waaye nag na ko na ci def ndox bés bu nga xam ne ndox mi normalement dana war a dugg rek mu doy wëndeel kun war war war na itam maanaam farata la. ragg gi fekkee na nga sotti ndox rek ba sa yaram nit mat te ragguloo doo am doo am njàpp doo càngaay faw fu ndox mi jaar sa loxo war na fa jaar
dafa am ñu naan soo demoon ci géej gi rek yéene plongé géej gi da ngay daal di am càngaay.
xamuñu ndax boobu bu fekkee ne da ngaa plongé te nga sa yaram nit nga laal ko da nga am càngaay waaye boo ko laalee dënk bi ñëwul te te farata la si waajib la dégg nga mu ne waddal kun ak rag wala baadal maa yi doonte gannaaw sotti ndox ma lay dangaa sotti sa gannaaw ba pare ba fépp mu wër ne ndox mi laal na nga teg li ngay kilee daal di bomb na danaa tey dama doy dégg nga mu ne aw bi xirqatin wala morso sarbet nga tooyal moom nga moom ngay ragge fi nga fi sa gannaaw jotul bu dee am na ñoo xam ne seen loxo moom jot seen gannaaw awistinaa batin wala wóotal dangaa woo benn nit di la ragal parce que dana doy ci nga wala taa wa in taadra doonte gànt gàntaloon nag saqata mu rot fekkee ne yow mënuloo am morso wala sa loxo mënul lemu ba même boo amoon morso yi doo mën a raxas sa gannaaw te it amuloo koo woo mu ragal la léegi nga bàyyi sa gannaaw rot na war a xii tooyal waaw da nga tooyal nga sotti maanaam dëkk bi daal moom dina la daal di- waaw dël ko moom moom dana rot sina mu ne xam nga farata yi wax na ko kon léegi ñaata farata la bu jiitu nii yéene yëpp.
tax na mu saa bàppul wa fóolu dal.
dël ko waaw kan dël ko fóolu niyatun fii badihi xam nga Richa kii Ibn Asir bu ngeen ko mokkaloon rek masal yu bari dina toog waaye jafe mu daal mu ne mu ne wax sunu loxo mu ne sunu oslu yadihi mooy rafet ñaari loxoom awalan ca tàmbalikaayam sunna la sunna la kon bu la wóoroon ne set na raxas ko léegi du tee nga raxasaat ko mu mel ne ci njàpp mi boo demee ba sori sa njàpp yaa xam nga war a wala nga fàtte dara war a tàmbaliwaat daa ko raxasaat ndax sunna la mu ne kon su yàlla day raxas ñaari loxoom awal ci njëlbéen ci tàmbali simaax udnayhi simaax mooy tempan kan mi parwaay yi agul ba ca biir a biir waaye ba sa fi sa baaraam yem nii dégg nga simaax udnayhi ak simaaxu ñaari nopp ñi wa madmaratun ak galaxndikoo wastin shaaqun ak sharaxndikoo istinsaarun ak fiiru fiiru moom laxdar yoo risaala ak wan riba soppeef na bët un tàmbalee bi isaalati lëza ci dañal sobe su ma ba wudu yi topp mu teg ci cëri njàppam ni ngeen ko xamoon ci yeneen kii rek kaamilatun bi mu ajimat maratan par benn yoon wa alaahu wa sopp nañu alaahu wala sunna la wa sunna la alaahu mu tàmbalee ci fa gën a kawe wàcc jëm ci suuf wa mayaaminuhu wa sunnal ba tey mayaaminuhu tàmbalee ci toujours bépp lu am ñaar nga def tàmbalee ci ndeyjoor ba wa taslisu rasi ak ñetteel raxasu bopp bi gannaaw bi nga ko xalilee tooyale sa xal pare nga sotti ñetti tànk yi wa qillatul maa yi sopp nañu néewaayu ndox mi bi daa xaddin ci lu dul dayal waaye nag lu mu mën a néew néew na tudd ko raxas dana matale ka xas lin ka xas li fàjjin naka noonu raxas pay xas li junub fàjji junub biñ la li aw lii ngirul na ma delloom li jumaa yéen ci booloo dégg nga sopp nañ ko wudu hi ak njàppam li noo min ngir na ma nelaw foofu dañ fi def law si boo xam ne li ñuy wax njàpp moo xam ne du toj dara mënu ko toj mooy njàpp moom nga war a nelawaale fekk sangu woo nga war nga nga war a nelaw parce que nga njàpp jàpp sopp nañ ko waaye laa tey mu min bi cagi nga tiim de nga bëgg a nelaw rek na naa tiim sangu bu waaye naa tiim nelawaale ko déedéet walam yàqtul te du yàqu mukk moom njàpp moomu li ñuy wax njàpp moom du yàqu illa dina yin delluwaat ci wa tam naaw dana tere nag léegi al janaabatu janaaba mooy tere mu tere mawaani al asxari way tere wuy toj mu ndaw loo xam ne toj mu ndaw mooy xadas nit ki nga xam ne benn sobe taxu ko waaye amewul njàpp moom mu ngi ci xadas jindeegul xadas bi xadas nag yi mu tere yëpp mooy lan lan la xadas tere téye kaamil wër kaaba ga julli kon janaaba tere na yooyu yëpp ba noppi terewaat nag ay yeneen i tere wa wa mu tere nag alqiraata jàng léegi xam nga borom xaras mën na jàng moo sañu fab kaamil dana téye ko waaye mën na jàng alquraan nga ne ko nag borom janaab bi moom du jàng dara ci alxuraan mu naa illaa ka aayatin dara lu néew lu toll nekk benn verset benn aaya rek wala ñaar moom la moom li taawusam ngir muslu kenn day léem wala muy ñaan mu tiim julli ba noppi bu ko yokki bu ko jokkee ci julli gi nag da nga xam ne nga xam ne tiimay farataam mu yéene waale ko jokk ci julli gi mën na sax jàng lu bari wala mu war kaab ak yéen war nax wi wala lu niroog musluwaay wa tere na ba tey du xoola masjidin tàbbi jàkka wala mu taasan donte wii waaye donte passage day nga xam ne jàkka ji dañuy jaar di dem itam yow mi amee ngaay daal sangoo ko doo sa kii di tere na la ko doo ko jaar te kaafiri ñu ngi la ci ñàkk a war a jaar ci jàkka donte passage la woon it que kaafir ne ko yéefir itam wayin usina dégg nga donte dégaloo fat na muslimun jullit itam te amul jàpp déedéet mu ne ma ni mel ni ñaari mel nag te def comme ak jaño wala xeetu tarxin ak xeetu tóor tóoru tàndarma bu góor aw aljinin wala mooñeet raxas ndab lu ñu mooñeet ñu raxas ndox mi wuyu si dana doy moom ca ngaay nag anil wu doy wala si jàpp waaw fii nag الذين أصابهم على بدن خمسة وتكون بنسبة على تذكر والمستعد من ولا يسأل الخلق المستعد xam nga misaal xam ku dégg fiq la ku mën fiq la fii nag daf fi juum am na ñaari béréb yoo xam ne daf fi juum waaw benn bis mu ñëw ni ma Muxtaar Jëng Bay am na foo xam ne juum na fa njuumte lu metti ndax moom nee na bu dee sangu buy ak si njàpp ci kanam bi bu yéene jàpp mu ne ko ah càkkaay kay day na wut si daal mu ne ah déedéet sëñ foofu de moom foofu moom foofu moom duggul samba foofu moom foofu moom àndul ah wax dëgg yàlla foofu de sëñ bi boo demee rek na nga seet xalit rek boo ci seet charab boo ci seet même kii bi gën a gàtt sax jërëjëf kii parce que ñun suñu waaye nga wax mu dëggal fekk mu fàtte na su ko doon am wax nga mu ne ko da moom sa xel mën na ko mottali cangaay moo farata moo julli moo njàppee te farata la te moo gën a matale kooku kaay wax dëgg yàlla gis nga fii moo ne donte fàttewoon nga njàpp mi dana doy doy doy bari na li mu yorante gaa ñi mooy wax dëgg waaye dafa xam naa dafa jël mu ne wa in tabayyana donte guróon na adamu janaabati yi janaaba wóor ko ne amul ci ngaay sangu yóbbaale na njàpp mi waaye su jàppul Bu yéene farata.
su jàppul ci biir càngaay yi ah su jàppul ci biir càngaay yi su jàppul ci biir cangaay li itam ànd na am na njàpp am cangaay lu dul mu laal loo xam ne bu ko laalee njàpp mu tëb ba te fekk cangaay li mu tëb fekk bu cangaay li àggul mu laal ko cangaay li yàqu donte def ci lu ci lu jàpp yooyu ci biir faaw xam nga comme buy sangu faaw mu laalaale ko faaw mu raxasaale ko ndax farata la da da dama ko laaj ba ki dem ci biir jàkka ji kii boobu kuñ ko laal yow waaw waaw ki nga xam ne ki dafay sangu waaw
dem ba ci dem ba ci biir jàppoon toj ndax wala dafay day yéene man dama ne ko rek comme dafay kooku day commencé àggale cangaay bu noppee jàpp ba rek loolu laa wax bu ko day àggale moom njàppam day àggale cangaay bu noppee jàpp waaw waaw ndax cangaay li yàquwul waaye njàpp moom yàqu na bëgg naa yàqu na waaye cangaay lu mag loo xam ne dara yàquwul ci biir jàpp dara yàquwul njàpp mi ci biir cangaay moom boo paree mën nga dal di julli doonte sax warul cangaay lu warul la woon itam parce que moom dafa laaj ndax daal di yéene sa kanam boobu la laaj déedéet ma ne ko comme denoon raful xaaras rek xaaras moom lépp la ñuy yëkkati ba leen muy raf xadasina mooy ci njàpp aw mu taro dafa des waaye bu dee bu dee kii moom bu dee cangaay moom du xadas bi ah loolu xam naa ni wax waaw dëgg xanaa may si fii asnaa fii asnaa yi fii asnaa yi loolu.
waaw suñ ci biir gannaaw gannaaw.
waaw.
mu jàpp ba yàgg waaw
biir njàpp mu toj.
mu yàqu waaw waaw ah day jàppaat kooku day jàppal.
waaw am na njàpp.
merci.
waaw dama ne mi ngi mel ne koo xam ne ki da ngay sangu da ngay jàpp ba pare di sangu ci biir nga laal loo xam ne dina yàq.
waaw da ngay jàppaat te xam bu masaloon sax defe naa booy gis si année wu doy bi rek da ko yóbbaale.
ñu bàyyi na ko bu yàgg waaw loolu ci risaal dañoo wax ne maanaam bu fekkee ne dañu doon jàpp laal ko xam ne tëj na jàpp waaw bu noppee day tooyal loxo mu jaar yoon maanaam dañuy wax ne njàpp mi day woyof ndax lépp raxasoon na ko maanaam day jaaraat mbalam fuy cëri njàpp mi rek dana fa jaaraat ah nag yéene nag di dem beneen yéene dégg nga waxas lu mu duuree raxas ak njàpp mi dana bay an xas li maxal yi walis raxas bérébam wala wu naa seet doon aji fàtte wu mu la di jënaan léegi dafa sangu ba noppi am na fu mu fàtte ci cëri njàppam léegi mu julli wu fi mu war a jàppaat bi mu jàppee mu raxasaalee loola cër bi mu fàtte woon wala diggante bu mu fàtte woon ci cangaay li yi ak yéene yi jàpp njàpp farata la comme ni sangaay nekkee farata dana doy mooy waxas lu dul raxas ak njàpp mi dana doy an xas li maxal yi wala sa raxas bërëbam ba ca cangaay wala naa seen donte daf ko fàtte woon ba muy sangu itam wala naa seen donte bi muy kii de bi mu koy raxas ci njàpp mi dafa fàtte janaala bi janaala waaw ndax yéene njàpp ji mu yéene moo tax yu bari waaw foofu ci ndax dalil. maanaam bu ma nas yàlla moo xam ne ah da wala wu da aami.
waaw foofu dafa fàtte benn eh, kii diggante ci njàppam li mu julli yëpp ba ba mooy amaat meneen njàpp baaxul parce que matul mataliwul faaw mu matale amoomul amoomul gise di la amoomu waaw daal bu soo ila faaw mu matale ko dana baamu nag loolee mu julli woon moom ba faaw dana ko jël bu fekkee ne dafa toog fukki at sax fàttali ko wa- war na ko baamu mooy mooy balaw ba da amin dafa toog at xam ne moom daal am na njàpp bu mu jàppoon te waccoon na cër bu mu raxas doon wala diggante bu mu fàtte woon te julli woon na ca takkusaan ak timis dana baamu takkusaan ak timis donte dafa toog ba am at fàttaliku ko wala fukki at wala téeméeri at fàttaliku ko dana ko baamu ñaar yooyu.
jàpp nga ne li dama ko nuyu bari loolu Hmm?
jàpp nga ne rek nañ
waaw xam nga njàpp njàpp mi si boppam ji nga neen waaw mel na que tey da nga bëgg a ziyaare ji benn borom xam-xam wala bóor waaw dégg nga nga nga ngay jàpp wala nga bëgg a tukki bëgg a ànd ak njàpp wala nga bëgg a nelaw bëgg a ànd ak njàpp dégg nga njàpp moomu du farata kon du yéen farata mën na mën na tëj njàngale du ko déedéet du ko doy du ko du doy ba gis loolu maanaam ndax mën nañoo yéene jàpp mu faral ci waxtu wi ñu waaw waaw lu dul julli rek mën nañ ko yéeneen avant kii julli daal moom la ñu wax chartuha maanaam charte takbir ci tra arab yi muqaaranatuha li niyyati mooy yee ànd ak mu nekk lu mu attan naka noonu la dernier maanaam mooy diggante bu mu wàcc min haa ci cëri njàppam na ni cër bu mu fàtte ak diggante bu mu fàtte ci cër bi waaye an jot yi la si doonte ci poor la wala yoon mooy lu ñu takk lu gaañu gaañu wala yooyu ñu taf ci kii bi pression ah mu ne bànn waaw bànn ko wala yooyu foofu itam